asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax euh, di wax ngeen abonné te ngeen ni aimé vidéo yi loolu moo ci am solo di leen aimé vidéo yi xam ne da ngeen koy fàtte tey ñu ñëw ci chronique yu bees bi jagleel ko Bété Bété épisode 31 gis nañ Douga Thiam boo xamante ne débarqué na ci kër euh, ki nga xamante ne mooy Marème Sall euh, ruube ko jaxase ko gis nañ ki nga xamante ne mooy mm, Dieynaba Tall daal di daanu ci siis ndax dafa xam ndax ki nga xamante ne mooy Douga mm, Thiam daf ko tiré bal loolu lépp dañ ko gis ci li nga xamante ne mooy chronique bu bees bi mais laata ñu fi ñëw dañuy dem ci page publicitaire bi te ñëwaat. da nga am jafe-jafe sa wala àdduna cat daf laa sonal wala lamiñ dawal seeti Serigne Salifou Mbacké di sët si Serigne Sidi Mokhtar Mbacké seet gu leer nañ li si xaar wax la sa ëllëg ba nga xam ne gis na la dawal seeti. Serigne Saliou Mbacke fasu ndig boo xamante ne koo xamante ne saawara dafa nooy nga gaaw a daanu booy say jigéen di gaaw a àgg dawal seeti ko ndaxte fas koogu noonu maamam ju baax gi di Serigne Sidi Mokhtar Mbacke moom moo ko joxoon mook ko baaxe woon jigéen boo xamante ne dangaa taw a am doom dawal seeti ki nga xamante ne mooy eh, Serigne Saliou Mbacké koo xamante ne da ngay lijjanti ay kayit mu jafe muy visa nga bëgg a dem bitim réew wala nga nekk bitim réew taw a ñibbisi demal seeti Serigne Saliou Mbacké. ngir jokkoo ak moom woo ko ci numéro bi 77 385 92 00 wala 78 124 20 45 ak Serigne Saliou Mbacké aju yëpp faj. comme ni ma leen ko waxee rek ñu dugg directement ci euh, fi nga xamante ne mooy euh, bi Djigo Thiam ñëwee euh, dugg ci kër Marème Sall ñi nga xamante ne ñooy ay sëtam yëpp topp ko ngir lan ngir mu bañ a def li nga xamante ne muy jiyee ci foofu noonu. mais bi mu ñëwee teew ko ruube kër ga ku ne xam nañ jóge ci am ak tàngoor bi mu am et bi bi mu ñëwee euh, ki nga xam ne fekk fa ki nga xamante ne mooy euh, ma xujja ak alkaali ñoom ñëpp essayé koo téye baru def li nga xamante ne mooy jéyee mais tey laa soo ko gis Marème Sall bu tiit ah Marème Sall boo xamante ne bi mu gisee fetal bi njuga jaabeer dafa tiit mais heureusement que gars yi dañoo intervenir téye ko ndax daf ko dafa dóor bal bi jeene ba taal je pense que ne ko dafa xam rek parce que gis nañ jeene ba état de santé bi tout actuellement dafa fragile ak